ñëw nañu fii ñaari weer ci gannaaw wala ñett def fi meeting ci place bi ma am lu ma leen waxoon ci Thiès Thiès potentialité économique yi fi am boo ko méngaleeg situation Thiès sa xol day jeex su may wax Thiès nag dama wax région de Thiès région de Thiès boo demee ca gannaaw ga vocation bi mu am mooy vocation agricole ñu mën faa bay lu ne loo xalaat rek mën nañ ko bay fii ci Thiès Thiès dafa nekk ci dafa am tuuti contact ak li ñuy wax le bassin arachidier waaye am contact surtout ak li ñuy wax la zone des ñaay nga xam ne zone boobu rek tey mënoon na régler l'autosuffisance du Sénégal en produit maraîchers ba ñu am excédent di exporter mu ñuy andil devise gu bëree bëree bëri mu am nu muy dooleel ci suñu koom-koom Thiès ba tey am capacité bu rëy rëy ci li ñuy wax la pêche muy napp gi ndax li gën a rëy ci littoral bi muy la petite côte comme la grande côte côté Mbour comme côté bi jóge fii romb Euh, euh, nu mu tudd Kayaar yéeg ba ci kaw Thiès da cee am lu bëree bëri bëri ca xam nañ ni foofu potentiel bi mu am ci wàllu pêche néew na fu ko am fii Sénégal ñu ne su yemoon foofu sax ba léegi Thiès waroon na mun a nekk une région extremement développée mais ñu ne la boo génnee loolu Thiès am vocation touristique diggante mbuur ba Ngaay ak possibilité yi ñu ci am ci artisanat articulé au tourisme mu mënoon indi lu bëree bëri bëri ci koom-koomu Sénégal waaye indi ko ci région de Thiès ak doomu Thiès ñu ne Thiès am na nag une vocation xam nga nag ko tudd mine rek tudd lu bari dañuy wax lu bëri ci phosphate bi naam phosphate baa ngi fi te yàgg na fi torop fii mbooro te jëriñul Thiès jëriñul waa Thiès. jàpp naa ne li muy jëriñu Inde ak doomu Inde moo ëpp téeméer yoon li muy jëm jëriñ Sénégal ak doomu Sénégal ñu ne nag soo demee Diogo di fa fekk xeetu zircon ak yeneen yu mel noonu nga xam ne tey dem nañ ba ne Sénégal bokk na ci les trois plus grands producteurs ci ci àdduna bi lan la ci waa Thiès am dara ñu ne ba tey ci potentialité yi ak capacité yi nga xam ne waroon nañ ko am fii biir Thiès néew na nag doomu Thiès bu xam ni fii Thiès ñu ngi fi exploité gaz depuis 1980 depuis 2008 ñu ngi fi exploité gaz benn société américaine di ko exploité ñu koy jaay ay milliards ci génn te Sénégal amu ci grand chose Thiès gisu ci boppam kon. région bu am région bu am lu toll noonu ci ay potentialité ñu toog ba ne Thiès waa Thiès nee nañu amuñu beneen possibilité surtout la jeunesse thiessoise lu dul Jakarta gi moom man xam naa ni xam naa ni campagne bi bu jeexee su ma tëddee guddi sax dinaa dégg Jakarta parce que foo dem Sénégal foo dem sénégala ah, de Tambacounda à Matam de Dakar à Ziguinchor foo dem ci Sénégal jeunes yi ñaar lañ lay wax amatuñu benn alternative lu dul dawal Jakarta wala émigration clandestine